mune mandai day mané ka mune ma li du gatché dem élection amo du gatché mune ma ñak dem élection moy e gatché ci leader man ne ko li nga wax deug la ci la jappé wax ji ñi buñu dem won sax du gatché sax kan du defuñu du di len encourager di len ñaanal di la ñaanal lu bëré bëré ak ngëneel di wax ministre de la de sport lim ci war def yépp na def li len umit président ba ca la tuitu joomaay yooyu ay waaye lu muy tu ay waaye bàyyi ma lu muy tuit lu muy tuit yokku leen jàmba waaye doo ñu dimbalee lu muy tuit wane ne maa ngi seen ginnaaw lu muy tuit ba pare xamul sax li xew tuit nga ñaari yoon fekk na nag xale yi moom capture xale yi dañoo ay ci capture xale yi capturé nañ ko lu ñuy tuit lu muy tuit yow lu ngay tuit sax xamoo ci dara ngay ñëw di tuit moo leen um moo tax amuñu dara benen bu li amate na tej geminam rek mu tok suñu ñu ma nga neex na nga génn sa réew dem défendre sa drapeau réew eh, nga yëg président bi ci sa ginaaw eh, bàyyi ñi waye tamit xam nga bu ko gëmon du juum mu ko gëmon amana du juum waaye du ko gëmut lim doon def parce que boko gëmé da ngay am suivi day top da ngay xamné tay fi final fi demi final fi li la fi li la fi li la waaye xamoo ci dara nga ñëw rek. tuuti da nga jàpp ne moom dafa yeewu rek. dafa yeewu nii rek wala ko waxal ci affaire bi rek waxal ci affaire bi rek ñëw xam naa papaam Sonko ko ko wax rek mu def <laughs> moo ñu umbe lu ñu ñàkk tey nañ ko ko jooy. alors Ndeye Sow léegi la cérémonie officielle màggal bu Touba euh, nga gis ne euh, kàddu yu bëri jib na ci. Euh, ndigal bi aussi euh, jib na fa nga xamanteni ni fu mu toll euh, euh, ni magal muy bés bo xamanteni manam journée d'action de grâce la waron doon ak jaamu la ak def lu baax nek ci yu mel nonu ngir magal busbi bi ngir borom bés bi limu ci namoon yépp waye gis nañ ni Sénégal yi dañ ko commencé def folklore ay otesu ak yenen yu ni mel nga xamanteni jaxaso jaxasoo jigen nemeku ci nañ ci ba porte parole khalif bi yëkëti ay cadre yu ni mel ak ki nga xamanteni modi bon je me dis que man jaxasoo góor jigen gi gisuma ko ha ah, wax nga ko ne nga berne la foré bégee je pense que hôtesse yi man suma ma sama kër ma ma ma am samay gan yu wara a ñëw samay sët nekk fa samay dom samay mak samay rak bu le nexé ñu hôtesse su def ay déguisement li ma sol ni hôtesse la won def suñuy déguisement sañ seetlu rafet ñoo tok bégee la boy jaamu yalla da ngay set ku rafet a neex a jaamu yàlla nag <laughs> moo jaamoo booy jaamu yàlla da ngay set da ngay sangu ba set laal sa lu neex say xotaan du xeeñ sa dara du xeeñ nga civilisé lekk lu baax lekk lu neex lekk fu rafet nag tëdd fu baax lii da nit ñi def Tuubaa defu ñu fa leneen jàng ay xasaayit ne jàng xasaayit amul musique amul sabar amul tama léegi lu ñu bëgg leneen xëy na jaxasoo góor jigéen bi ak fecc euh, yi. nga xamante ne buñ fa teree dootu fa am buñ euh, léegi dañ naan dalukaayu góor dalukaayu jigéen waaye xanaa biir Touba ga nag <laughs> biir biir biir jumaa ja góor day dugg jigéen di dugg li xëy na nag ñoom bu ñu tegee ay charte ne léegi dañoo bëgg biir kër yi te xam nga loolu mënu nekk. Mm-hmm. ndax góoru jigéen du am këru góor du am këru jigéen du am da yor sa kër sa njaboot gi ay ñëw njaxasoo gi ñuy wax kan la. ma invité ana sama sœur ma invité la sama frère nga am fa sama kër ma invité kenen ak kenen pour man gisuma fa lu wara tax ñu naan jaxaso goor ak jigéen xeyna ci walum bërëb bi nga xamanteni ay bërëb public la nga xamanteni placeu da fay am ak placeu goor xeyna lu loolu bëgg mu dox ba ci ba ci biir public xam nga bërki dem ñun dem nañ ziaré ji uh, uh, sëñ Moundaha ak uh, amène doy ñu ngi koy remercier ñom Abou Diallo ñep malik Diop ñëpp ngi won ci délégation bi Euh, ñu jóge fa dem ci sañ Abdou euh, sëñ Bass Abdou Khadre bi ñu ñëwee ñu ne ñu jigéen ñi nañ toog ci ginnaaw ñun daal jigéen yi ñoom ña nga toog rek sànni ñu li may wax naan fii jigéen fii lañ ko def teguñu ko muy dara ana ñu jigéen ñi ñu toog rek ñu ngi ànd ak euh, benn jigéenu Ahmed bu jógee France ñu toog rek di xaar góor yi di dem Ahmed a nga uuf moom ca wet ga li mu def li mu bëgg li mu amit ñun moom lañu ñu bëgg ñu toog rek gis nga bi ma yëf yi soofee damaa jóg taxaw man la xanaa ñun dañoo war a soppiku doon góor bokk at yu baax yi góor ñi rek ñoo ko bëgg ñu dañoo soxla ci ñaan gi sëñ Bas da doon ree ñu ne dañoo soxla ci ñaan gi gaa yi ñuy man leen jóg leen ñu forcé sëñ ñi ñuy wax ñu sëñ Bas ne leen bàyyi leen bàyyi leen ñu def ko ni ñu ko bëggee lii la sëñ bi wax mm-hmm. li indi loolu mooy mënuñu nekk jigéen ñu sànni ñu ci ginnaaw ñu ne góor ñi rek ñooy ziar. ñun fi ñu wara taxaw rek lañu wara taxaw taxaw wax mais lu la leer ne man awma soxla bu ma wara wax señ bass bas bu buma kenn dégg ko lolu aussi nañ ko xolaat mën nañ exister señ bas mais ñu bañ ko jégé sax ñu bañ ko laal mais ñu tok jakarlo mo wax suñu soxla xartu jigéenu ki euh, bi jógewoon France mi ngi am soxla bu mu wara wax señ bas mais dañoo forcer ba sëñ bas ne leen bàyyi leen soxna si sëgg wax soxlaam ñu ko koy waxal kon dëkk bi doon fi góor moo gën doon fi jigéen mais imaginel aana nga dal sa auto def sa essence def sa lek dem ba Touba bëgg gis sëñ bi ñu la yow légui jigen bi ci ginaaw ngay nekk les góor ñi daal ñooy de en fait mais c'est c'est c'est et qui montre que la femme sa place est dans la cuisine lool la ñi wan dans la maison waro dem waro dik ban deuk lañ nekk. li ñu bëgg def aussi bu buñ ko bëggee li ñuy wax né nañ ko nañ ko ñom lu ñu dogal rek. Mm-hmm. ñoom seen deuk lu ñu dogal ñu fekk ci leen ci. mais nag man bu ma yoree sama kër sama doom day ñëw sama doom jarbaatu day ñëw sama doomu sër day ñëw sama ñëpp dañuy ñëw dañuy jaxasoo ci biir kër gi parce que suñu biir kër la ñoo ko fa tabax waaye nag bu borom dëkk bi nee dëkk bi lii laa fi bëgg nag bu keroog genn xëy na ñu ut solution buñ ko amul rek ku toog sa kër màggal sa kër. lii rek la de soxna Fatim euh, ba tey ci wàllu woowule euh, ñëw nañ ci dépense yi nga xamante ni inutile parce que nit ñi xëy na effervescence ak xër ci wàllu yoon boobu la dem nañu sax ba euh, sëriñ bi ñëwaat na ci ñi nga xamante ni dañuy dem ba sax di di di di ñaan paas pour mën a dem ci ci ci màggal gi nee nañu revoiraat yenn comportement yi par rapport au jour. koor ci màggal gi mais ci lépp la je crois muy tabaski muy korite événement bu mu mën di def nit li nga mën am ko tolloo ko yem ca euh, bu mu la jaral euh, yenn yi pour def ko bu mu la jaral lépp wala wala yenn yi pour di ko def euh, parce que damay gis ñu bari dañoo bëgg dem màggal ga mais dañuy wër di ñaan passe pour dem màggal ga màggal gi foog naa xawma ci lu histoire bi lu bari bari waaye dañu ne foo mën di ne rek mën nga ko faa màggal cant moom di sant nit suñu borom Euh, foo mën di ne mën ngaa sant suñu borom te nag booy sant suñu borom dafa am lu mu àndal ànd naag set ànd naag bëgg lu baax ànd naag xeeñ lu neex yàlla sax soo koy jaamu di julli loolu nga nar a def mm-hmm. du coup euh, euh, sëñ bi je crois que bu mu koy wax waxewu ko si ñii di solo wala ñuy sañse bëgg ko noonu non kuy sañse solo boo ko amee mën ko kenn terewu ko parce que nag booy booy booy jaamu yàlla daam li mu war a àndal ke euh, kenn bëggul dem ba mel ne ni euh, euh, setul wala yenn comportement yi jaamu ci yàlla waaye nag lim ci wax man ma mën ko cee jàpp mooy que li ngay def lu ne rek nanga ko mën bu tollook yow nga def ko am nga ko def ko comme ni nga ko mënee waaye nag ak lu mu mën di doon dafa ànd ak ay règle mooy que euh, ñëpp a fay dajee terewuñu ko góor ak jigéen ñoo war a def parce que pèlerinage la ñu wax euh, ñëpp ñoo fa war a mën a dajee waaye ba ñu demee ba wan leen yoon bi nga dem ne sax ba jumaa ja boo fay ziar dañuy def yoonu góor yoonu jigéen loolu war naa tax yow it boo fi jugee ba dugg biir Touba wallaay war nga ko gën a wormaal te loolu la diine sante santaane amaana ñun nag ñooy def leneen lu wute waaye foog naa règle ya nga xam ne ñoo ngi koy teg Touba wala ak beneen bépp kilifa këru diine rek bu ne ci réew mi règle yañ fa teg rek ah, loolu la islaam santaane ci loolu la ñu ne ci yoon boobu la ñu teg donc boo fa duggee waaye waaye nga la jàppale leen ca yoon réew yoon woow nga respecté ko ba ñibbi parce que des fois damay gis ñii di dem màggal ñu ne dëkk bii dañ fi tere mèche mais booy dem màggal yaa nga def sa greffage ba mu gudd nga takk même sooy musóoru je crois que comme yow xam nga ne fii dañ faa tere mèche laay booy dem mën ngaa bàyyi noonu sa bopp nga daal di muuru soo ñibbisee sooy takk say mèche di ko takk waaye am na ñoo xamante ne dañ koy def te ña ngay dal si kër soxna yi amaana ñenn ñi à part kersa parce euh, que ku xam ne ki yenn nit yi ay soxna yi wala yenn kilifa yi kersa la ñuy am pour wax la lii ak lii yow miy ñëw yaa war a mën a am xel nga def comportement de telle sorte que kenn du la duut baaraam wala kenn du gis lu négatif ci yow kantaan nag na na lekk ba suur naan ba màndi yóbbu valisu yére boo ko amee dara nekk ci pour moi parce que da ngay jaamu yàlla même sa kër booy jaamu yàlla man de su may julli damay xool yére bi gën a rafet da dama koy parfum ba mu xeeñ balaa maa <laughs> sëgg di julli macha allah donc kon kuy demit boo ca amee lu mu mën di doon rek mën nga kaa def man je trouve rien waaye nañu respecté li nga xam ne moom la diina santaane mëtale woo ko waaye fa nga jëm pour ñaani fa ah, fa nga jëm muy lieu bi nga xam ne mbir moo la tax a jóg ñoom loolu la ñu imposer seen dëkk je crois que leen ko war a respectel fonkal leen ko teg ko ca kaw bu fekkee bëgg ngaa jub ñoom te bu fekkee bëgg ngaa ànd ak li sëriñ bi wax ndax nit ku ne kilifaam la am te waxu kilifa yaakaar naa war nañ koo mën a war nañ koo mën a sàmm bu baax a baax bu kamara Sow laa ma ñëw ci yow euh, euh, ñu dem seeti ji wax ji nga xamante ni Alioune Tine yëkkati na ko euh, ci contexte boo xamante ni Sénégal mi ngi ci mi ngi ci mbiicoo mbaaloo ci diggante politiciens yi am Ndiaye indi Diop ci wàllum gestion ñi di wax scandale ñi di wax leneen ak leneen ñu relever position ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom Alioune Tine mi nga xamante ni mun nañ bu ñu waxee ne xëy na ci waa société civile la bokk dañ koy dañ koy nangu ndax mooy njiitalu Afrikajom sant moom ne jafa jàpp ni euh, Ousmane Sonko mooy président Sénégal ndax danga ànd ak moom ci wax jooju la ah moom di da koo yéex a xam wala xamoon na ko te <laughs> da koo waxut wala daa gisul boppam ci gouvernement bi xam nga nit ñi sax dañ naan euh, euh, nu mu paa bi Alioune Tine dafa bëgg